yàlla noonu nu yàlla yendale noonu ci jàmmam ñu ànd ak yéen ci dars fajar yi di delluwaat ci julli tey ñuy jël julli jumaa ginnaaw ba ñu waxee njëriñ yi nga xam ne moom lañu jël war a jële ci tabaski waaye mbokk jullit yi balaa julli juma dafa ay teggin ñu koy tuddee aadaabu yowmul jumaa tegginu bisu ajjuma ab jullit war koo def war koo jëfe ba pare dooga dem julli ji ajjuma yooyu boo leen di bind walla nga leen takk dana mot fukki mbir yu ab jullit wara def jëm jumaa ja ba ca jiitu mooy al irtisaalu sangu bala ngay dem jumaa sangul sangu boobu nag du saabon njàmpe waaye sangu set ndax sangu jumaa dafa war képp ku ko bàyyi dangay am bakkaar fa xuslul juma waajib wa yasimu man lam yaxtasil illa li darura sangu aljuma dafa war cib jullit bañ koo def daf lay indiloo bàkkaar lu dul nga am lor ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko waral moo ne xuslul jumaa waajib ala kulli muxtalimin yonent bi nee ku gént maanaam ku mesure ci lislaam rek yow sangu juma war la moo xam góor nga moo xam jigéen yaani ala kulli baalixin képp ku meseur ci lislaam góor walla jigéen sangu aljuma war na hadis bi mu ngi ci buxaari mbokk yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey àdduna ne kenn ci yéen buy dem juma na sangu ida jaa ahadukumul jumaa falyaghtasil kenn ci yéen bu dee dafa war a dikk ca jàkka ja ca jumaa ja na sangu na sangu ku war dem jumaa ja sallallahu alayhi wa sallam dénk na la nga sangu loolu mooy tomb bu njëkk ñaareel mooy at atanazuf mooy nga set wicc comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su jaree wat poqotaan yi bu jaree wàññi naanu yi bu jaree lelli weyi bu jaree wat naq bi dañoo bëgg nga dem ca jàkka ja fekk yaa ngi set wicc ginnaaw ba nga sango bi sa àjjuma nga laab lépp loo mën a laab diw sikkim bi diw karaw gi peñe ko taaru xeeñ lu neex sol yére yi laab yu set wicc nga doog jëm jumaa jam ñetteel mooy nga laal gët ak diw su fekkee ne yomb na ci yow laalal yére yi boo amee déodorant laalal poqotaan yi diwal sikkim bi diwal kawar gi ba mu xeeñ ba mu rafet nga peñe ko fexeel ba bul dem jàkka ja xet di génn ci yow sallallahu alayhi wa doon na wax ne kuy xeeñ laaj bu mu jege sunu jàkk waa kon mbokk yi kuy xeeñ lu raw laaj nag kuy xeeñ sigaret nag kuy xeeñ leneen ak leneen ak leneen nag kon kooku moom ban àtte la mën a yor kon mbokk yi nañu yëg ne bu ñuy dem jumaa dañoo war a xeeñ lu neex dañoo war a diw ba rafet juróomeel wala ñeenteel mooy lubsu ahsana siyaab ñu sol yére yu gën a taaru ci yiñ yor yére yi gën a rafet xel nanguwul booy dem ci àdduna yi ci xewi àdduna yi ngay dem di seeti ay xarit wala ay soppe wala ay mbokk wala ngay daje ak ay kilifa nga rafet sooy julli di jullee teni man xel nanguwul loolu kenn ci nekk ku nekkoon ci ñun tey bu ko président doon invité wala wala xalifa général bi doon la invité wallahi doo demee sa teni wallaay doo demee yére nangam nangam yu yamamaay da ngay sangu ba set defaru ba rafet daa di sol yére yi nga gën a rafet la nga daa di jëm ca jumaa ja kon loolu lañ bëgg jullit dafa war a dégg wax bi yàlla wax ne xuzu zinatakum inda kulli masjid bu ngeen di julli ji jumaa na ngeen rafet xuzu la wax zinatakum inda kulli masjidin ngalawaay bu ngeen di dem jàkk rafet leen ba ca tegu mooy as atasawuku mooy soccu fexeel ba gémmiñ gi set bul dem ca gémmiñ bul dem ca jumaa ja gémmiñ gi di génne xet ngay wax ak nit ñi ñuy dummooyoo ko sëgg assiwaaku mutaharatun lil fammi wa mardatun lil rab socc day laabal gémmiñ te yàlla da ci kontaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci xadis lawla an ashuqa ala ummati suma bañul woon sama xeet wi sonn mu ne la awa la amartuhum bis siwaaki maa kulli salaa danaa leen wax julli gu ñuy julli nañ soccu kon booy dem ca jàkka ja balaa ngay dem bu fekkee socc dafa jafe ci yow nga wut boros ba gémmiñ gi set ba ca tegu mooy at tabkiir ilal masjid nga teel a dem ca jàkka ja bul toog ba imaam commencé xutba wala ñuy liqaam nga bër bërdi daw dem ca jàkka ja teela la dem ca jàkka ja ndax nga am ci tiyaaba ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñi am nay tiyaabay nag ñi am tiyaabay gëléem ñi am tiyaabay xar ñi am tiyaabay ginaar ñi am tiyaabay nen laa ilaha illallah xam nga ne borom nen ak borom nag ak gëléem wallahi xam nga ne tolloo wuñu mbokk yi buñ doon jaay nen bi di jaay gëléem gi wala ñu jaay nag bi xam nga ne bu ñu fayee prix bi ba pare bay joxe xaalis bi xam nga ne borom nag borom nen bi dana ñee borom nag beeg borom gëléem gi te ku la gën a mën a teel a dem tiyaaba yooyu la lay ëppale ëllëg yowmal xiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee bu imaam bi génnee ba commencé xutba malaaka yi di déglu soo soo ñëwee dootoo amati tiyaaba kon nañu teel a dem ca jumaa ja ndax ñu am tiyaaba ba ca tegu mooy adamut tafarruq bayna isnayni soo ñëwee nga bañ a tàqale nit ñi toog moo tax nga war a teel a dem ñëw bàyyi ba nit ñi toog nga xool jumaa ji di xool fu sa bët xej nga xuus ñooñu a dëggate di jéggate nit ñi di jéggate ba yegg si fenn na fa burux nga xam ne ña nga ña nga toogal sax ñi ngi lay jéppi ñoo ngi toog waaye seen xol yi jaxasoo na ndax ni nga ko defee moo moo ñaaw loolu ab jullit du ko def soo ñëwee fekk jumaa ji fees demal fa sàppa yi tàmbalee nga lal foofu sa sijaada walla nga daal di toog moo gën nga ñëw di taqale nit ñi ak di xuus sàppa yi loolu dañ koo tere loolu nag li tax nga koy mën a ngay mën a góorlu di am loolu mooy nga teel a dem ba ca tegu mooy nga jàng suuratul kahfi bis ci bisu àjjuma bi fi ngay yeewoo fajar ba ba ngay tëdd góorgóorlul nga jàng fi suuratul kahfi lu am na ci ñoo xam ne nag ndeysaan ñoom sax ci jumaa ja lañ koy jàngee ndax dañuy teel a dem avant imaam di xutba ndeysaan minit yu ndaw minit yooyu ñuy teel a dem danañ fi mën a jàng suuratul kahfi ñu bëree bëri man xam naa ay mbokk yu bëree bëri ci jumaa lañ koy jànge ah mbokk jullit yi jàng suuratul kahfi ci sunnay bisu àjjuma la bokk ba ca mooy bisu àjjuma dañoo war a ñaan julli dafay bëril ñaan bisu àjjuma ndax yonent bi sallallahu alayhi wa inna fil jumaa la saa laa yuwaafiquha abdun muslim wa huwa qaaimun yusalli yasalullaha cheyan illa ataahu iyaahu am na ci heure yoo xam ne ci bisu àjjuma képp kuy julli wala ngay ñaan yàlla ba daje ak heure boobu yàlla tabaraka wa taala dafay nangu sa ñaan mbokk yi fukkeel bi mooy adamul israr ala qiraati suratal sajda wa suratul insaan am na ci ñoo xam ne nag ñoom dañuy ëpp ci jàng suratu sajda ak suratul insaan mooy xalata alal insaan te loolu lu ëpp ci doomu aadama yi ñu koy def mooy ñi nga xam ne dañoo dañ ci yaakaar wala ñu ciy wax ay wax yoo xamante ne la ci ëpp ci wax yooyu bidaa la la ci ëpp bidaa am na ci ñoo xam ne sax dañoo jàpp ne farata la fa baadul musallin yaataqiduuna anna qiraata surata sajda wal insa waajib fi fajri yowmul jumaa dañoo jàpp sax ne jàng ko ci fajaru ajjuma lu war la ba pare ñu daal di koy def pas pas bu wér te wa haazal itiqaad xooti pas pas boobu pas pas njuumte la kon mbokk jullit yi fukki tomba ngi ni yi nga xam ne mooy tegginu dem julli ji jumaa ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu mu may ñu màng Euh, tiyaaba yi nekk ci julli ajuma incha allah kon tàmbali nañ dars aj julli juma yal nañ yàlla may ñu jeexal ko comme niñ jeexale yeneen dars yi di leen ziyaara di leen baalu àq asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.